ci lañ xottee lépp kon moo mustaqun minhu la dañoo xottee ci moom dégg nga mustaqaat nag mooy yi nga xam ne dañ leen a xottee ci yeneen baat maam dañ leen a jëlee ci yeneen baat waaye masdar moom jëlewuñ ko fenn dégg nga ci lañ jëlee lépp baat bi yëpp na ko waaw waaye xëy na dafa ànd ci wax yi ñu wax ne fexlu mooy cosaan ñu ne déedéet masdar mooy cosaan waaw waaye boo ne fi'lu maadi mooy cosaan mm-hmm. ah nga jël jëlal si misaal akala lekk na mm-hmm. lekk dafay am ba pare nit ki door a lekk te lekk mooy masdar kon dëgg-dëgg xel wane na ne masdar mooy cosaan mm-hmm. loolu it moo gën a siw moom dafa ànd si ñuy wax ne fi'lu mooy cosaan masdar dañ ko xottee ci fi'lu ndax boo doon sarf da nga naan kataba bind na. dégg nga kitaabatan ak bind akala lekk na ak lan ak lekk gis nga akala lekk na yaakul dana lekk kul lekkal akalan ak lekk ñu ne kon da nga indi fenlu ba pare dooru indi masdar kon masdar ci fenlu ko xottee ñee xool ca maanaa ba ne lekk dafay xam ba pare lekk na door a xam ñu ne kon fenlu du cosaan waaye masdar mooy cosaan loolu nag moo gën a siw ci sarf mais dafa mel ne moom àndu ci ñooñu amsilatun lii mooy misaal yi dafay jàngale masdar masdar nag bu dee fi'lu bi mujarrad la fi'lu mujarrad jàngoon nañ ko masdar yi am na yoo xam ne qiyaas yi la maanaam fi'lu bi boo ko xoolee rek war ngaa xam masdaram am na yoo xam ne nag samaa'i la mooy na nga dégg arab yi doon waxee masdar bi rek noonu nga koy waxee parce que masdar sulaasi mujarrad neexul a takk neexul a takk nga miin. waxinu arab xam ne yaaram fi'lu bi masdar masdar bi nangam la ko doon waxee nga waxee ko noonu wala nga xool si dictionnaire ñu andil la masdaru fi'lu boobu waaw amma fi'lu bu dul mujarrad bu dee mazid la wala boog muy rubaayi mu rubaayi moo xam mujarrad bala wala mazid la kooku masdaram qiyaas yi la booy xool fi'lu bi rek war ngaa xam masdar bi lan la kon fi'lu bu am problème ci wàllu masdar mooy sulaasi mu jaral sulasi bo xam dafa rafle te du yep sax motax tax sarfu looloo tax mu xawa a tout na da fay dem parce que ñene li amul regal amul regal ba bal dafa am ci xam-xam yu bari wa motax su fekke da ngay jang matière ak matière bu mu doon war nga xam yi nga xam ne am na régal jaar man amna qiyas ak yi nga xam ne amul benn régal loolu dafa am ci matière bu ne. soo xamul loolu da ngay sukkandiku yow ci régal yi nga yi nga jàng di ci àtte boo xam ne nii amul régal nga am problème nga am problème loolu loolu bëri na ñu muy trompé nangam nangam wér nangam parce que parce que nangam ak nangam parce yow ñaar yi ngay comparé ñaar yooyu bokkuñ dëgg la ga bu doon ci xel rek la wala lépp xiyaas yi la li nga wax noonu la waaye li lépp dafa nekkul dafa nekkul xiyaas rek loolu moo compliqué sarfu sarfu loolu daf ci am lu bari waaye dictionnaire yi ñu ngi fi boo gagee rek boo demee foofu ñu gàgganti la mm-hmm. am siratun li mooy misaali sabar naa muñ nañ ala shadaa'idi ci jafe-jafe yi sabran muñ jamilan bu rafet sabru masdaru sabara la kon sabru lañ ko xottee ci sabara waaye déedéet sabara lañ xottee ci sabaru parce que muñ bu amutoon duñ mën a wax ne muñ na mm-hmm. kon sabrun masdar la masdar gis nga ne xew-xew la maanaam sabru ab mbir la waaye gis ngeen ne du ànd ak benn jamono kon dafay tekki ab mbir ab xew-xew boo xam ne àndut ak benn jamono moom masdar loolu lañ soxla ngeen jàpp ci darsu tay bi masdar dafay tekki xew-xew boo xam ne àndut ak benn jamono feexlu nag dafay tekki xew-xew bu ànd ak jamono sabara muñ na jamono bu paase la waaye sabru muñ ban jamono la amut benn jamono kon loolu masdar la te gis ngeen ne xarafa mi ak xarafu feexlu bi benn la ñu doon léegi-léegi nag xarafu masdar bi ñu yokk ci yoo xam ne amul ci xarafu feexlu bi comme bii di ñëw ci gannaaw qiraatu jàng naa darsu darsu bi qiraatan ak jàng xasanatan bu rafet qiraatun moog xarafi qara benn la waaye nag gis nga qira yokk nañ ci loo xam ne qara amu ko dégg nga kon su ko defee qiraatan ak jàng tekki na xew-xew àndut ak jamono masdar mooy li tekki xew-xew te du jamono qiraa na ab jàng waaye àndut ak benn jamono qara dafa tekki jàng koo xam ne dafa ànd ak jamono jamono bu paase yooyu masdar sulaasi la xaatal du xeex ak naag al mushrikina yéeféer yi xitaalan ak xeex xitaal xeex lay firi rek maanaam xaatala faala lañ ko teg yooyu danañ ñëw ci seeni cosaan dafay tekki defante defante nag baaxut waaw defante daal ci lu baax la baax nga xam ne duma daq def lu baax waaye duma ma dàq def lu bon moom loolu musiba la dégg nga mm. gënuma bon gënuma saay saay gënuma réew xam nga réew benn ngëneel nekku si bañ koy gëna gënante gënumaa moom mooy lu am ngëneel gënumaa foo koy wax rek na fekk mu am ngëneel waaye lu amul ngëneel kenn du ci wax gënumaa dégg nga su ko defee xaatala mooy defante xaatala mooy xeex naag moom mu xeex moom ku nekk dafa xeex ak moroomam masdar bi mooy xitaalan dafay firi xeexante waaye yooyu seen maanaa danañ ci ñëw xitaal tekki na jëf àndut ak benn jamono قاتل نك تك نجف بي اندك جمال بو باسي كون قتال مصدر لا لين سوخلا تاي موي nga xam lan moy masdar اما فعل بو نيك لوي مصدرام لول دا نانسي نيو تعلم جانغنا ولا تعلم جانغال داكو كسرا داكو كسرا لالتقاء ساكنين ngir ragal dajé ñaar sukoni تعلم لهون مو تعلمل جانغال al ilma xam-xam fa taallumu jàng mun jin aji musal la gis nga taallama jàng na taalluman ak taallama ak jàng taallum jàng rek lay firi maanaam xamlu tekki na jëf ju àndut ak benn jamono ama fexlu bi di taallam jàngal tekki na jëf joo xam ne nii jamono buy ñëw la war a doon kon gis ngeen taallum masdar la tekki na jëf ju àndut benn jamono qaxqara na aljabaanu tàppet bi qaxqaratan aliyeer bu tat qaxqara kooku faan la ko tëgg tekki na jëf ju ànd ak jamono waaye qaxqaratan ak aliyeer tekki na jëf ndax ànd na ak àndut ak benn jamono kon qaxqaratu masdar la gis ngeen ne xarafam yi niroo naag xarafi qaxqara su ko defee yii nag bokk na érab ci naxwu yi masdar yi ngeen gis ma famoon mutlax lay doon toujours dafay nasab moo tax gis ngeen yii yëpp dafa nasab dégg nga xanaa fa taallumu mun din kooku mubtada xabar la wax fa commencé moo tax mu rafa waaye bu doon taallama elma man ngay wax ak jàng moo tax sax ñu bari bu ñuy tudd mas da ngay ko parce que moom bu ñëwee gannaaw feexlu dafay nekk mafoolu mutlaq comme nii tadaxrajat béréngu na alkuratu bal bi fa tadaxruju béréngu foofu foofu mubtada fa da bul kurati mooy baax ak bal loolay xabar ga tadaxrajat béréngu na alkuratu bal bi tadaxraja fi'lu la guy tekki jamono bu passé waaye fa tadaxruju béréngu kooku masdar la béréngu rek lay tekk masdaru tadaxraja la kon lan mooy masdar mooy luy tekki ab xew-xew maanaam jëf ju àndut ak benn jamono fexlu nag dafay tekki jëf ju ànd ak jamono moo tax masdar ismu la tur la ndax bu àndut ak jamono tur la fexlu nag moom jëf la ndax dañ koo jëf ba pare masdar mooy jëf ji mais kenn jëfagut ko jëf ji moo tudd noonu moo tax tur la fexlu nag dañ koo jëf. ñaar yooyu bokkuñ su ko defee masdar jëf la ju kenn jëfut ah, moo tax anut ak benn jamono fexlu la dañ ko jëf te jëf moom boo ko jëfee benn mu nekk lu paase wala teew wala luy ñëw kon su ko defee liñ soxla ci darsu bi sarfu mm, darsu bu nekk dégg nga même bu la ci ustaas bi waxee loo xam ni tamit jàngagoo ko nga baax na jéem koo dégg waaye nag yow sa xel mi yëpp na ko def ci dars boobu ci lan la bëgg a wax nga xam loolu nga comprendre ko parce que boo xamee loolu takk ko bu baax daf lay topp dars yi ñëwaat dafay gën a yomb waaw doo dem ñu lay wax dara ngay xalaataat ci loo xam ne waroon nga ko xam ba pare parce que jàngoon nga ko jàng ku ci bëgg am ndam da ngay jàpp li nga passé da koy takk bu baax a baax a baax a baax a baax. kon liñ soxla ci dars bi mooy nga xam lan mooy masdar masdar mooy lan mooy jëf ju àndut ak jamono gis nga baamu naa koy yoon nee naa la ci lañ jëlee fi'lu loolay li gën a wér ci ñooñ sarfu am na yu am xiyaas yi yoo xam ne jar na xalaat am yu amul xiyaas yi yooyu moom bàyyi sa bu la neexee mën nga ko bàyyi noonu danañ ko jàng waaye sulaas yi ñu amul xiyaas yi lu ëpp lu dul sulaas yi rek moo xam mazid la sulaas yi même bu dee mazid lu dul sulaas yi mu jar rek masdaram moom dañ koy xam masdar jëf la ju àndut ak jamono loolu moo di masdar comme akulu lekk du jëf la ban jamono la amul jamono adar bu dóor du jëf la ban jamono la amul jamono ashur bu naan jëf la ban jamono la amul jamono yooyu masdar la loolu mooy masdar boo xoolee dafay mel ni sax boo boo yeewu dëgg ci naxwu mën ngaa jàpp ne masdar fi'lu la parce que moom jëf lay teg buñ ne la azzahabu dem te fi'lu yéen la fi'lu mooy lu tekki jëf rek buñ la waxee fi'lu mooy lu tekki jëf rek noppi buñ la waxee azzahabu dem lan la naan da nga naan fi'lu la fekk azzahabu dem masdar la maanaam ismu la ndax jëf la ju àndut ak jamono fi'lu nag dafay ànd ak jamono kon masdar jëf la ju àndut ak jamono. albaxtu li mooy gëstu bi ku la waaye datin benn bu nekk min hasil kalimaat ci baat yi sabara muñ na xaraa jàng na xaatala xeex na te daax rajo béréngu na fenlun ay fenlu lañ baat yi mu wax yëpp fenlu lañ mhm. lu tax li an naa ndax ñoom taduru dañuy tegtale alaa xadasin ci xew-xew muxtaranin bu lënkaloog bi zamanin ci jamono ndax dafay tekki xew-xew ba ànd ak jamono kon luy tekki xew-xew xew la lu moom mooy jëf rek luy tekki xew-xew bu ànd ak jamono kooku fenlu la bi xilaafi kalimaati wuteeg baat yi sabrun muñ xiraatin jàng xitaarin xeex taallumin jàng qaxqaratin aliyeer tadaxrujin béréngu yëpp dafay tekki jëf waaye ànduñu ak jamono loolu mooy masdar fay na ku la waaxidatin benn bu nekk minage ñoom masdarun masdar la baat yi ñuy tudd yëpp masdar lañ li dalalatiha ngir tegtal gi ñuy tegtale ala xadasin ci xew-xew xeyri muxtarinin waaye lënkaloohuñ bi zamanin ci jamono dañuy tekk jëf waaye àndu ñoog jamono dañuy tekk jëf waaye àndu jamono kon masdar mooy luy tekk jëf te àndut ak jamono loolu loolu rek mooy darsu wax ji lu bari bëri bëri bëri jàpp ci ñaari yi masdar mooy luy tekk jëf te àndut ak jamono nga xam ko bu baax ba foo gisati masdar nga xàmmee ko loolu lañ soxla ci darsu bi fa kullu kalimatin bépp baat tadullu de wala boog la tegtale na ala xaddasin ci xew-xew mu jaradin bu aji rafle ani zamaani si jamono tu sammaa dañ koy tuddee masdaran masdar bépp baat buy tekki jëf ju àndut ak jamono xamal ne masdar la waaye ismu la parce que isu ismu turu jëf jooj la jëf juñ jëfagut ak jëf juñ jëf du benn fa in taamal naa buñ setantaree kalimatay sabrin ñaari baat yii di sabrun ngi firi muñ wa qiraatin ngi firi jàng wajet naahuma fekk nañ leen masdaran masdaray ni ñuy ñaari masdar li sulaasi mujarrad ñeel sulaasi mujarrad sabrun ak qiraa masdaru sulaasi mujarrad lañ ndax masdaru sabar ak qaraa lañ fa masaadiru sulaasi mujarrad masaadiru masdaru sulaasi gu rafle laa tattaridu du takku alal qiyaasi ci qiyaas bu ñu waxee tattaridu wala muttaridun mooy loo xam ne ni foo ko fekk noonu na waaw li nga xam ne nii dafa am dafa am dafa am yoon woo xam ni du ko jàdd ma mukk comme ñu ne la tafaala mu daari mi yatafaalu la hmm. foo fekk tafaala rek mudaari bi yatafaalu loolu mooy qiyaasu loolu mooy mutarid loolu mooy qiyaas tamit parce que tafaala yatafaalu tafaal loolu foo fekk baat buñ tëgg tafaala rek si changé mudaari bi yatafaalu la amru bi tafaal parce que loolu qiyaasu qiyaasi la kon masdaru sulaasi yi mu jarat takku wut ci qiyaas laata taridu du takku alal qiyaas yi ci qiyaas fil xaali bi ci lu ëpp gis ngeen lii dafa am ci xam-xam te gis nga gis nga lii kuy jàng matière maîtriser lu mel nii yow doo juum ci matière boobu waaw ndax léegi-léegi borom xam-xam yi wala mbir matière bu ne nag danañ ci àtte loo xam ne nii yow li nga jàngoon ci sam ci xel sukkandiku yooyu ak lii ñu àtte du benn mais dañ koo teg ci ay xaraayin yu tax ñu génne ko ci xiyaasam yooyu nag noo gën a xóotee ci njàng ma rek ci ngay gën a xam lan moo tax ñu teg ko ci fii baatee noonu lii nag dama jàpp na arabe yi si boobu ñoo doon waxee nii rek ñoom waaw lii moom wàllu làng la arabe yi nii lañ doon waxee yenn yi ñu génnee ko seen xiyaas su ko defee ñu ñu génnee ko si xiyaas bi comme ni ko arabe yi doon waxee. kon masdaru sulaasi mujarrad waxoon naa ne li ëpp takkuwut ci xiyaas wala xaañeel na ko aw zaanun ay peese kasiratun yu bari masdaru sulaasi am na ay peese yu bëri. almadaaru lay yoon fi maarifatiha ci ñu xam masdar ma ala samaay mu ngi ci dégg tey xaraa dañoo dégg arab wax xiraatan ñu ñu ne xiraatan rek jeex na loolu mooy sama sama mooy dañoo dégg arab di wax ñu wax kon masdaru sulaasi mu jarat jàppal tay ne li ci ëpp ku ko xam rek daf koo dégg daf ko dégg wala mu gis ko rek wala mu liir ko hmm? dégg nga fiihaa nekk na ci bandul awsaan yenn ci pees yi alqiyaas yoo xam ne qiyaas la ma ci la nga xam ne sa taqifu da nga taxaw insha allahu nem soom ne yàlla aleyha ci moom waaye ci ban fil juz saani ci xaaju ñaareel ba ci téere bi nee na sulaasi mujarrad am na ci masdar yoo xam ne nii qiyaas yi la incha allah da ko jàng ci xaaju ñaareel ba comme wilaayatun dafay tekki métier ñu luy tekki métier palte masdaram dafay nekk fi'aalatun moo tax ñu ne riasa muy président wilaya waaye yooyu danañ ko jàng yi nga xam ne ni xiyaasi la ci xaaju ñaareel bi nag wa ida nazarna buñ xoolee ilaa kalimatay si ñaari baat yi qitaalan ak taalluman wajadnaahuma fekk nañ la ñoom ñaar masdaree ni ñu ñaari masdar li sulaasi al ñoom masdaru sulaasi lañ waaye mazid kooku moom qiyaasi la foo fekk sulaasi mazid rek masdaram da koy xam naa lañ naan la fenl bi bu dee tëgg bii la am masdar bi tëgg sàngam ni nga xamee mu daaro yi ci dar su weesu baatu qaxqaratin masdarun masdar la li rubaayin mujarrad ñeel rubaayin mujarrad kon kon kon kon balaa ñuy ñëw naan la faala la masdaram nangam la war nga ko xam parce que faala la masdaram faala tan la maanaam ba bàyyil fan la la googu nga yokk ci tan rek loolu mooy masdaram daxraja andil daxraja nga yokk ci tan muy daxraja tan qaxqara mhm. qaxqara tan malmala tan mhm. jeex na kon masdar li rubaayil mujarrad qiyaasi la mhm. wala axiratu bu mujj mooy tadaxrujan kooku masdaru euh, rubaayi mazid la nga dee gis ne tafaan la la lu laal la maanaam da ngay da ngay daamu digg ba rek tadaxraja boo bëggee masdar mi dàmmal dàmmal muy tadaxrujan tafaan la la laagu njëkk ga ngay dàmm rek tafaan lu lan tamal mala tamal mu lan taqaxqara taqaxquran waaye loolu danañ ko jàng hmm. mais comme que moom benn la bëriwut mu jox la war ngaa xam ne kon masdaru tafaala la tafaalu lan la kooku masdarun masdara li rubaayil mazid ñe rubaayil mazid tafaala la kooku tafaalul masdaru rubaayil mazid la di tafaala la fa bi ma taqadama ca la jiitu taarifu ngay xam an al masaadir ne masdar yi min sulaasi al mazid ci sulaasi mazid wa rubaay ak rubaay mutlaqan nu mën a demee mutaridatun aji takku la fil qiyaasi ci xel mën ngoo jàppee noonu مصدر سلاسي مسير أفير قلة دوكو جين بمك ولا يكو جين دال دفا جاد قياس وستقف لنا تخو إن شاء الله نمسوم على تلك الأوزان شو يلي في جدول شي أب رد خاص باجي جاكو بها چمو دان لدفا لأيكي شي غناو رد بو خمني ييغا خمني مصدر لكي يني قياس يلي في أندي دان لأندي فعلو بي ماري بي مدار بي امر بي اك مصدر بي خلاصه لي موي تنك بي فالمصدر ومصدر هو مو ما موي لاغا خامني دال تكتل لا على حدث تي خيو دون زمان تانوت اك جمانو لول موي مصدر موم لا نسوخلا مصدر موي لو تك خيو خيو تانوت كدار بي غي فيري دور تعليم غي وتعليم غي فيري جانغالي yooyu tekki nañ jëf ju àndut ak jamono fal masdaru masdar mina sulaasi al mujarrad si sulaasi mujarrad aksaru la ci ëpp samaa'iyun ka jug dégg la sulaasi mujarrad li ëpp ci masdaram benn sëriñ mënu la koo jàngal ba nga mën koo xam mhm. waaw foofu moom yaa yëkkati sa rek dem gëstu ji xam ne fenlu sangam nangam mooy masdaram ba nga miin ko mhm. bu la ko nga wax ko it miin rek moo la ci dimbale waaye amul benn yoon bu la ko mhm. miin rek كون لا يترد تاكو في القياس سي خيل مصدر ثلاثي مجرل سي اوب حمود يون لي نا واخنا لنا لي بوكو كومبراندر سي خيت خم خم يو بري داغا مانا نوبلو لي دامنا سي فيق امنا سي نحو امنا سي لول يو خم ني جارو سي خم خم جارو سي ريغل ما لا جانغلون واو آه. مثل قتل gi firi rey shurbin naan kitaabatin téere yooyu masdar sulaasi la qatala rey na shariba وهو مصدر قياسي قياسي لفي الثلاثي المزيد في الثلاثي المزيد ورباعي المجرد الرباعي المجرد والمزيد الرباعي المزيد رباعي مم موقع مجرد بلا مزيد لمصدر قياسي لما نم أفيرو قلة ثلاثي مزيد مزيد تجيني أمون يب سين مصدر قياسي لا مانام افيرو خيل لا ميم سولاسي مجرك امنا سي مصدر ميو خامني قياسي لا افيرو خيل لا مثل التعليم جي في جانغلي على وزن التفعيل تبيز تفعيل مصدر فعل لا فعل تفعيلا علم تعليما كلم تكليما قلم تقليما يعني فعل فوق جسر مصدر تفعيل وقهقرة قهقرة على وزن فعلرة بيز فعلرة مصدر فعلرة تدحرج التدحرج على وزن تفعلل مير بيز تفعلل كوك مصدر تفعل لا كما ستقفكم نيغا دا تخاو عليه سي في جدول الدرس الثالث والعشرين سي نياري ردي درسو نعرف fukk ak ان شاء الله som yalla dal fa andi مداري امري mudari amri baadul masaadir li sulaasiya al mujarada lenn ci masdari sulaasi mujarad darbun dóor lay firi min daraba mu ngi jugee ci daraba samun dégg min samia gi firi dégg na zahabun dem min zahaba gi firi dem na kitaabatun bind min kataba gi firi bind na julusun toog min jalasa mu ngi jugee jalasa gi firi toog na sayrun dox min saara mu ngi jugee saara gi firi dox na xawlun wax mu ngi jugee ci kaala gi firi wax na dañ si gis ne saara saara da ngay gis ne ajoofu alyaayi la mm-hmm. ndax sayru bi moo la ko wan xawlu nga xam ne ajoofu alwaawi la ndax xawlu gi moo la ko wan mm-hmm. xaala it yaanun dikkee min attaque yi firi dikk na dégg nga nga mm-hmm. xam ne naaqisu yaay la parce que masdar yaa nga fa gis ibaaqun daw mu ngi jugee ci abiqa daw na sarayaanun rañaan mu ngi jugee sara rañaan nga xam ne kon sara naa su yaay parce que gis nga masar mi yaa nga fa gis waaye yooyu ñoom même nuñ ko bindee rek war naa xamal ne cosaan li yàlla comme niñ ko jàngee woon hmm. masaadirun tisaatun juróom-ñeenti masdar wala boog masaadiru tisaati awzaan hmm. masdar yi juróom-ñeenti teggi nii menel sulaasi menel mazid ci mazid sulaasi bañ ñu xam ne it feexlu bu ëppee ñetti xaraf masdaram qiyaas yi la mm-hmm. ñu njëkkee ci mazid sulaas yi nga xam ne seen cosaan ñetti xaraf la waaye yokk nañ ca nga xam ne yi nga xam ne seen cosaan ñetti xaraf la mm-hmm. waaye yokk nañ ca mm-hmm. yooyu juróom-ñeent anam lañ ci jàngoon ñun léegi seen masdar la ñuy jàng tey faala foo ko fekk masdaram tafil la moo tax taksiir gii firi ak damm mu ngi jugee si kassara damm na ko waznu faala kon kassara taksiiran foo fekk faala rek xamal ne masdaram tafil lay doon foo fekk faala masdaram mu faalatan la comme comme mu qaatalatun ak xeex mu ngi jugee si qaatala xeexante rek mu qaatalatun léeg-léeg mu nekk كم قتالا أحسن كوغ أفعل لنكتك مصدر إحسان لا أغرفتل أفعل إفعال أخرج إخراج أذهب إذهاب أك... دينغ دينغ جزا دينغ دينغ بمجيح تفعل فوق فيك مصدر تفعلا تفعلا comme taallama jàng na masdar bi la njëkk tudd moom taalluman ak jàng tafaala foo ko fekk masdar mi tafaulan la comme taqaatul masdaru taqaatala xeexante nañ taqaatulan tadaaraba tadaaruban tazaaxama tazaaxuman bam jeex infaala foo fekk masdar mi infaalan la كم إن قطع إن قطع أدق افتعل فوفك مصدر من افتعال لا كم اقترب اقتراب احمر فوفك مصدر من مصدر بإحمر إف إفعل لكون فوفك مصدر من إفعلال <laughs> لا أنا آه، بوني بتي سد بي داغي كسر تي إفعل عين بي نيك شد بي داغي كسر soo ko kasara nga def alif diggante laam gu njëkk gi defaat beneen laam ci mujj ga maanaam da ngay bi muy ifilaalun comme ixmarra kasaraal miim gi muy ixmi aywa léegi ba fara andi alif ci diggante bi yokkaat beneen raa muy ixmiraarun isfarra isfiraarun istafaala masdar mi mooy istifaalun comme istiftaaxun sàkku ubbi muy jógee ci istaftaxa كن فعل تفعيلا كم كسر تكسيرا علم تعليما فعل مفاعلة لكم قاتل مقاتلة دارب مداربة ولا ولا ولا ليلى قتالا أم توابي من قياس أفعل إفعال كم أحسن إحسان أخرج إخراج تفعل تفعلا كم تعلم تعلما تكلم تكلما تفاعل تفاعلا كم تقاتل تقاتلا تدارب تداربا إن فعل إنفعال كم إن قتا إن قتاع انصرف انصراف افتعل افتعال كم اقترب اقتراب احتطب احتتاب افعل افعلال افعلال دنك اوي فرفوف دين ادغام كم احمر احمرار اخضر اخضرار استفعل استفعال كم استفتح استفتاح خمغا تيغي ني جانغون كون سيني مصدر لولا مساجر الرباعي مطلقا مساجر الرباعي اك دمي kon rubaa yi moo xam mu jaral la wala mazid la seen masaadir seen masdar nii lay deme masdar mooy benn bi masaadir mooy ay masdar mu njëkkee faala la kooku rubaa mu jaral la masdar mi wax naa la nga yokk taa sa mujj rek muy faala la tan comme daxraja tun min daxraja mu ngi liggéey si daxraja léeg-léeg nag ngeen dégg ma nasab masdar mi wax tan léeg-léeg mu wax tun waaye loolu sans <laughs> départ baat moom dem goo ko ci jumla amagul benn maska comme daxrajatun masdaru daxraja la kon foo fekk rubaa mu mujarrad faala la boo bëggee masdar mi yokkal taa ci mujj ga rek muy faala la tan taqaxqara masdar mi taqaxquran la ko kon tafaala la foo ko fekk dàmbal laam gu njëkk ga rek muy tafaalu lan tafaalu lan wala tafaalu lulun yëpp benn la taqax qara da ngaa daam xaaf ga rek muy taqax quran wala taqax qurun mooy masdar ma ixrin jaamun masdaru ixran jamala kon if an la la foo ko fekk rek if in laalun ngay wax maanaam diggante ñaari laam yi ngay def if an la diggante ñaari laam yi ngay def alif rek waaye nag da ngay kasar ayin araf ba topp arafu ñetteel mu nekk if in laalun comme ixran jama ixrin jaamul léegi ixran jama nga jël kasara raaga muy xarfu ñetteel ba diggante jiim gi ak miim gi nga ci alif mu nekk ixrin jaamul kon ifaan la la foo ko fekk masdar mi ifin laalun la iqchaararun la la maanaam ifaalal la mi da nga koy ifin laalun maanaam xarfu ñetteel moom foofu da ko da nga ko kasara su ko defee nag xarfu ñeenteel ba da nga koy sukkoon su ko defee nga dindi idgaam bi maanaam nga bàyyi nga def alif ci diggante laam gi defaat beneen laam ci mujj da nga koy def ñaari laam waaye yoo xam ne alif lay dox seen diggante bu nekk ifil il laa doon xarfu ñeenteel ba nga koy sukkoon xarfu ñeenteel ba da nga koy kasara. su ko defee nga bàyyi benn laam guñ sadda nga fa gisoon waaye léegi ñaari laam nga fay def def alif ci diggante ba muy ifil laalun léegi iqchaar la def ko loolu ñu ne ah, da maa waxoon ma kasara fu ñeenteel ba fii mooy Chine kasara naa Chine nga ne ma fu ñeenteel ba mooy ayin léegi sukkoon naa ko léegi nga ma raa gi ma def ko ñaar mooy mujj gën a koy def ñaar yu niroo def ci diggante alif def naa ko ñaar raa def ci diggante alif mu nekk iqcha iqcha raarun iqsha raarum ko mooy masdar ifalal la te xam ngeen ne sulaasi rubaa yi ñetti tëggin yi la amoon tafaala la ak ifal la yokk benn xaraf ak ñu yokk ñaar xaraf ñu yokk ñaari ñaari tëggin la ifal la ak ifal la la wala ifalal la rubaa yi mujarrad benn tëggin la moom ay masdaram jeexal nañ ko andil bi ashrina jumalin bi ashri jumalin mufidatin ci fukki jumla yu am njëriñ wastaamil nga jëfandikoo fiyaa ci ñoom masaadira ay masdar mina sulaasi mujarrad si sulaasi mujarrad indil fukki jumla yu am njëriñ na nga ci def masdar yoo xam ne sulaasi mujarrad lañ lañ jugee ji indil bi ashrin uxra ci yeneen fukk wastaamil nga jëfandikoo wastaamil nga jëfandikoo fiha ci ñoom masaadiru ay masdar min a sulaasi mazid ci sulaasi mazid mm-hmm. andir fukki jumla yoo xam ni dégg nga jumla bu nekk rek da nga ci def masdar goo xam ne si sulaasi al mazid la jóge mm-hmm. ji andil bi arbain jumalin si ñeent jumla wastaamil nga jëfandikoo fiha ci ñoom min a rubaay ci rubaay mutlaqan nu mën a demee mm-hmm. andil ñeenti jumla yoo xam ne dafay am rubaay mu jarat ak rubaay mazid te rubaay mazid ñetti tegil la kon rubaay mazid tegin bu ne da si jël benn ak rubaay mujarrad waaw ñetti jumla yoo xam ni masdar mi dafay nekk rubaay dafay jugee ci rubaay mujarrad ñetti jumla yi seen masdar dafay jugee ci rubaay al mazid gu ñu yokk benn xaraf ak ñaari tëggin yi ñu yokk ñaari xaraf in uridu al islam astatuma tawfiqi illa billahi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wassalaamu aleykum wa